这个是。

suñ amul fuñ ko waxee su keneen ki ñuy toog tooñ hmm. keroog ba ma gisee journaux yi fii jar cité ñii di tudd ay alal yoo xam ni mën leen waa alal yi ba banque lañ koy dugal fu fu mu jaar eh. lu koy dugal yéen yéen a ngi foyee seen métier fii hmm. sama journaliste ma wax leen ni leen nag fexe leen ba ñii li ñuy fooyee hmm. bu leen ko foyee li ñuy wax ndax mun naa nekk yi ñi sos ndax yeen mën ngeen ko nangu yi bu leen dugg rek ci ne film bi lu lu ci mëna bind rek ma bind ko ci yoy yeb ma tok ba kéro ci fin d'année keroog ba ma toogee Macky Sall mm-hmm. ma ko président dama ci ma sañoo mm-hmm. da ngay def ni anglais di wax bàyyi ko def dara mo gën japp ko deful dara japp na ne deful dara mu ne ma non non mais yow nag yi ngay wax nangam ak nangam ma ne ko ah waxal ma ndax ma xam man kat soo gisee may weddi bugg a xam rek a tax waaye dowul bugg a di wax ma ndax ma xam mhm. ni mooy faale à mu commencé di nettali ne ma dana jàpp lu ko sax te tax ñu àtte ma ne ko waaw wax ma parce que man façon kaso dafa diis ak man diis boo xam ne mhm. na fekk mu wóor ne borom moo def mu commencé joxaane nangam ma ne ko man di joxaane xaw ma waxuma koy tër man Imaam Ndao rek laa bëgg nga ne ma def la man daal kooku rek laa lay laaj hmm. bi ma ko tañalee ba mu yàgg hmm. mu ne waa kooku sax ne nañ def moo tax bu ma ñëwee fin bi ñu ma waxee man leen moo ma ma ko wax te itam ba may dem su ma demoon man kenn ñu xam ne lu may toog moom la hmm. mu may ma ci lii wala mu ci ay nit laa àndal maa ngi toog la la may wax ak moom di xëcc gi kii yëpp mi ngi toog léeg-léeg mu wax ma ne ko nag balaa ñoo jógee ci bii nga wax ma loola mu ne ma waaw loola ma ne ko waaw gannaaw nee nga deful dara fan boo ko fa tegatee rek xamal ne yaa ngi lool waaw kii téere yi joxoon مؤلفة الصفحة 29 moom laa defar mboolem xadis ba nam demee saxafi bu nekk. salaam salaam te jihaad ak ni ñu ko bëggoon a déggee. waaye yeneen xistaa ngi ci pareegul nag waaye muqaddima la. lii itam mooy bi ñu la yónnee woon waaye tontuwante bee xibaar nga ca am. moom itam nga am ko. waaw. alhamdulilah.